أمداني منزلي دانا وداي ومنزلي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 seen bokkum taalibe El Hadj fallu Diaw di leen ko defal ni leen ko faral di waxee ñuy baral di seeti boroom xam-xam yu mag ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci fajum cosaan ak baatin tey ñu ngi doxantu woon ba fii ñaari tali ci en face cosaan kilifa gu mag ku ñuy wax alxaaji Malick Guèye xam a màcc jëm ci wàllu fajum cosaan ak baatin ni leen ko waxee xam-xam sarut dafa làqu waaye nag balaa nga koo xam faw nga jóg dem ci ñi nga xamante ni ñoom la ko suñu borom xamee te it nit war sa jëf ci lu la muy jëf da koo xam moo tax ñuy faral di ñëw di seeti borom xam-xam yu mag yu demee ni ñoom ñu fas yéene di waxtaanee li nga xam te ne mooy xam lu nëbb xam lu nëbb nag li si jublu mooy nit ki dina dund loo xamante ni lu sor lay doon ci moom moo xam tawat la wala mu xam ku ko bëgg lu ko ñaanal la wala muy dund ay jafe suñuy faral di waxtaan ak borom xam yu mel nii ñuy leeral ci seen biir leeral nit ki li muy dund ndek dina wax ni ndekete man lii laa doon dund waaye li koy waral mooy ñàkk xam. kon xamle lu nëbbu di seeti borom xam-xam yu mag di waxtaane lu nëbbu nit ñi di ci gis seen bopp tey ñu ngi doxantu woon ba fii ci alxaaji Malick Gueye xam naa dañ leen koy bàyyi ngeen nuyoog moom waxtaan wi nag liñ ciy leeral ci biir lay gën a yaatu bismillah rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Cheikh Fadil euh, ginnaaw bi ñu nuyoo suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi seede ne amul benn buur budul moom di julli ci ab yonenteem ak ay saabaam di ñaal waa réew mi ñëpp suñu borom def fi jàmm ak tawféex yal na ko yàlla boole ñun ñëpp ñu ngi kontaan tey ci ñëw bi nga xam ne moom lañuy wax Bichri TV ñëw bii ñu ñëw wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte eh, di leen dalal di leen wax eh, eh, alhamdulilahi macha allah la a ah, tey li ñuy yaatal dafa doon lu am solo tey dama ni yàgg nañoo def xam xamle lu nëbbu waaye tey li ñuy waxtaanee mooy dëgg-dëgg xamle lu nëbbu ndax li ñuy fas yéene waxtaan mooy ana lan mooy baatin. ak njariñal baatin ci ki ko xam di ko def ak ki ma koy defal ak lan mooy danger ci baatin ci ki ko xamut di ko def ak ma koy defal tey sëriñ bi waxtaan bi dañ koy jëmale ci loolu beneen laaj bi nag mu nga ca biir waaye dama yax ni lii rek daanaka dafa doy waxtaan bi ndax xam lu ne bu moom bu xuusee ci loolu rek mën na cee leeral lu yaatu bismillah nga wax lu am solo la ndax xam nga euh, xam-xam buñ ko dee wax itam xam moo tax te xam nag euh, maanaam gàcceel na xamadi cërub xam maanaam gàcceel na cërub xamadi sunu boroom subhaanahu wa taala bi mu sàkkee doomu aadama daf ko sàkk ci anam yii anam yi mu ko jàkk sàkkee mooy xel bi mu ko joxee la pare ci moom ndax boo xoolee ci la ay ba wax wala xadd karam naa bànni adama wala xadd karam naa bànni adama googu suñu borom bëgg gu mu bëgg bànni adama ilaa axari aaya nga gis ne kon doomu aadama yi bu góor góorloo dana dem ba tolloog malaayika daraja waaye bu yàccaaralee dana dem ba tolloog bàyyi ma daraja wala iyaasu billaahi ñuy dem ba gis ne nag kenn mësut a dégg ñu ne yonent bi jinne yonent malayka sunu borom bi muy wàcce li ñuy wax yonent ci doomu aadama la ko wàcce wàcce ko ci fenn fu du doomu aadama kon doomu aadama valeur am dafa rëy moo tax lu nit di xam doomu aadama moo koy xamal foofu la xam-xam tàmbalee bu ñu ñëwee ci li ñuy wax paj paj day mbir moo xamante wi nit mënu koo def te li ñuy wax diagnostic amut diagnostic mooy nit ki nga càmbar ko ba xam raw xaanam biddiwam buróojam fan la nekk ak booy def nooy nooy def ba dugg ci danga ci am ndam doo ci am ndam loolu lépp mu ngi ci diagnostic nit ki ku mënta diagnostic mënta dugg ci domaine jàmbur parce que sunu borom dafa sàkk doomu aadama mu am dëkk boo demee ba ci dëkk ba nga laaj ci këram boo demee ba ci kër ga nga laaj ci néeg bi muy fanaan loolu nit daf ko am nit bu ko amul amul suñu borom dafa sàkk loolu ci doomu adama moo tax li ñuy wax tabian ak buróoj yaa ngi dégg yooyu yëpp dafa dajaloo ci doomu aadama nga xam ne nit ki bu ne salaamaaleykum nga ne ko aleykum salaam lan nga war a njëkk càmbar ci moom mooy fexe ba xam li muy ñaanlu fan la nekk ndax man nga wala mënoo ndax du ku jóg nga mën ko faj am na ñoo xam ne mënoo ci ñoom dara yàlla def tawat googu mu nekk ci ñoom loxo mënu koo génne loolu war nga ko xamee ba waroo ci jiim dara am na ñoo xam ne mën nga koo faj mais amoo ay génne paj ma ci yaram wa am ñoo xam ne mën nga koo faj waaye la muy laaj ndax ki ngay faj dina la ko jaral. te loolu lépp da nga koy xool ba gis ko doo ko mën. ndax li ñuy wax à peu dafa nekk lu dangereux ci lépp loo gis. soo gisee ñu naan ilmul yaqin maanaam dëgg-dëgg gi xam-xam mooy loo dem ba teg sa loxo bokkut ak liñ lay ab liñ lay wax te tegoo si sa loxo xam dafay dem ba toll ci maanaam loo laal li nga xamante bi da nga koo gis bokkut ak li nga mos li nga mos bokkut ak li nga wan xam-xam àgg na ci doye boobu kon nag boo ñëwee ci réew mi bari waa na lu ñuy waxtaanee fekk xam tàmbali woo xam wax waxtaan ci xam-xam xam nga ndoxum siti du xam-xam. jàngale Kajoor du xam-xam boo déggee ma ne du xam-xam du le du juste wala def débat dafa nekk loo xam ne dañ koo war a baaxee doomu aadama yi nit ñi xam ko pour mën koo jëfandikoo seen bopp jëru déplacé wu xam-xam mi ngi tàmbali ci nit ki ñëw nga xamal ko lu nekk ci jëmmam xamal ko li mën a nekk ak li mënul nekk. ah sëñ bi ndoxum siti nga ne du débat. ah ndoxum siti moom mun naa gàllankoor ni damay faral di dégg ñuy wax ni sax mooy ndayu jàngoro waaw xam nga boo déggee ma ne la du débat mooy boo xoolee dañuy gis ku ci def waxtaan te ndoxu siti man damaa jàpp ne euh, maanaam wareesu ko may yitteey di ci def ay tomb yoo xamante ni parce que li koy rey dafa bari te gàncax la te bari na fi boo déggee mën a du xam-xam nit moo lottu ci xam-xam rek waaye wareesu su ko jox valeur bu toll ni di ko def ay tomb pour waxtaan. Hmm? ndax dafa am yoo xamante bi maanaam mag ñi dan ko daan laabirante dañ lay wax ne boo tolloo ci état bii na nga jël mbër boof ak dàng jaxase ko di ko xent di ko naan ñu ne boo tolloo ci état bii na nga jël am senjeng boo tolloo ci état bii na nga jël am salaan nga xam ne boo demee ci as soin bu boo demee ci téeram bu ñuy wax xoratul ay nii ma nga cay wax nit dafa war di nandulu nandulu mooy débouché maanaam li nga xamante ni moom mooy lekk yi daje te mënta rees war ngaa toog benn weer woo xamante bi war ngaa jël benn bis boo xamante bi da ngay naan luy dawal biir bi ba la mënta rees génn dem nañ ba complexe dugg na foofu nit ñi defatuñ ko mu ngi yàq lu bëree bari bëri te nit baax na yenn saa yi ngi wiide sa biir wiide sa biir nag du xam-xam boo xamante bi dañ see war a débat parce que lu ci ëpp lay dur rek Dakar. boo gisee ma lay wax loolu du xam-xam c'est parce que dañu mag ñi dañu koo jàngal te jàngale boobu yamul ci ay nit kese dafay yaatu léegi nag lan mooy ak dëgg-dëgg ji xam-xam mooy tey jii ñu ñëwoon ku ñu ku tudd Modou njaay ñëwoon ne man dama am jafe-jafe jafe bi jafe bi mooy lan mu ne moom de damay gis ni daal pour mu am dara day jafe donc ah waa baax na kon léegi bàyyi fi sa ñu xool li li koy waral lan la su fi bàyyi turam li may def nag bëgg naa ba mu pare ñu ñu netaal ko ci table be pour ñu xamut xam léegi su fi bàyyi turam nga def Moodu Njaay Moodu Njaay mii boo jëlee tur bi calcule ko miim gi 40 lay taxawee 40 plus 6 mooy waaw gi del gi nekk 4 jiin gi nekk 3 liif gi nekk benn yanara gi nekk 10 hmm? kon boo ko boolee dina taxaw ci 64 su fekkee na juumuma léegi 64 boo ko divisé maanaam ci par 12 ndax 12 mooy jox. li ñuy wax maanaam brouille bi maanaam biddiw bi fan la nekk chiffre 12 la moo lay jox biddiw bi chiffre 7 moo lay jox bis yi chiffre 4 moo lay jox tabian bi nga xam ni ndox nga wala safara wala ngelaw wala suuf léegi pour nga xam nit ki brouille am lan la dafa leer wala dafa lëndëm nga diviser ko ci chiffre 12 dana jox 5 moo ci des li ci des ay virgule la nga effacer lépp jël cinq bi. darbuwaar ko ci douze mu jox la soixante nga def moyen cër la nga amoon lu bari la nga génne ko ci xam nga soixante quatre nga amoon léegi soixante nga génne soixante quatre mu des kat kat boobu boo ko xoolee bis mi ngi tàmbalee ci dimanche nga ne dimanche altine talaata àllarba kon danañ xam ne mu Mourou Ndiaye àllarba la moom 4 la juddu 4 heures googu moo taxaw ci maanaam euh, bisub àllarba nga gis ne boo xooloon biddiw boobu dalay jox àllarba ji ban biddiw la taxaw ci àllarba àllarba ji ban ban ban buróoñ la dalay jox Joal nga gis ne kon biddiw bi dafa dafa lëndëm nga gis kon bi muy gane ci àdduna bi muy ñëw ci àdduna dafa dugg ci biddiw boo xamante bi nekkut biddiw bu leer. ndax kooku sëñ bi dina neex a ñaanal. nag problème nag foofu la nekk dafa am loo xam ne lu loxo man la ak loo xam ne mbir mu yàlla la li nga xam ne mbir mu yàlla la danga koy bàyyi ak suñu borom boo ci jiimee dara doo ci mën dara ak loo ko mën a laaj mënoo fexe ba def ko satisfaction nit dafa am loo man ak loo mënul li nga man xam nga ko li nga mënul xam nga ko waaye pour mu leer la man nga ci dara wala mënul ci dara da nga koy diagnostic ndax li ñuy wax isaab nit da nga koy isaab lu ci nekk nga xam booy dugg ci moom noo ciy duggee sooy ñaan noo koy ñaanee parce que bu fekkee isaab nga ko moo lay wax kii nitu ngelaw la nitu safara la nitu lu mu doon loolee nag soo ko dee ñaanal dana yombal mbir mi waaye bu fekkee ne da ko àpp pare mooy waral mbir mi day diis te doo ci am ndam te da nga ca lekk weexlu jàmbur ba pare kooku xam na li nga ci def it mënoo ci dara. Euh, sëñ bi su ma déggee sa wax maanaam mooy mu ngi mel ni nit ki ñuy wax bu demee ci médecin bi di ko wax tawatam dafa mel dañ ko defal consultation ba xam moom mii dafa jafet wala dafa am estomac wala tension moom na ci moom wala dafa rhumatisme wala lenn lu mu mënti doon parce que médecin bi faaw mu def analyse ba noppi ba analyse bi génn wax ko ni lii moo ko dal muy doog jublu ci paj mi. ak bu mu mën doon rek maanaam diagnostic bi mënut si ñàkk yenn saa yi da nga dékk suñu mbokk yi naan seet dafa araam mais xam ban seet moo araam docteur li ñuy def lan la balaa ñu laa faj lu ñuy def dañuy dañuy jël sa sang jël jëla jëla jël ba doyal ñu ne la may ñu ay fan ñu xool li ñu lay dal lan la pourtant xam-xam àgg na foofu de ki am xam-xam am na droit def diagnostic am ba xam ba xam moom dafa war a dugg wala dafa war a bàyyi waaye nag bi gën a dansé mooy ngay dugg ci loo xamante yow da ngay appare appare wóorul xamul loo fa fekk ndax néeg bu tëjee te xamoo ki ko tëj bañ ko tëjee léegi xamoo kañ la waaw ak nu mu fa tëjwaalee nga ñëw dajji jàppal bàyyi bàyyi la xel ñaar ba ñett mën nga ko ubbi am ponkal fekk la fa hmm? lu ci nekkoon mën a ci am kon bala nga koy ubbi boo amul bëti baatin wala nga am bëti saayir parce que àdduna lool la saayir ak baatin la fi am hmm? léegi nag bu fekkee ne yow nit ki ñëw na toog sa kanam wax na la loo xamante bi xamugoo ko bala nga yiy dugg danga koy nekk ba càmbar ko xam boo ci dugg noo ci duggee moo xam ci tawat gi la moo xam ci maanaam ci am amam la moo xam ci am am buy dem la moo xam ci ak pal la ak lu mu mën doom ndax mooy tax nga xam buróo jëm bi ñuy wax ilmu nujoom bi ci ngay dugg xam tombam fan la nekk boo déggee ilmu nujoom lu muy def ci doomu aadama biddiw dalay yombalal sëñ Fallou mi ban ban heure nga war a ñu toog ñaanal ko ndax dafa am biddiw yoo xamante bi ci bis bi ñeenti yoon la ñuy ñëw am am am am am am biddiw yoo xamante ni ñaari yoon ñetti yoon la ñëw ci bis bi te ñetti biddiw yooyu ñaari bid ñetti biddiw yu nii la mel. dafa am bi benn biddiw boo xam ne dafa ñuul kukk am biddiw boo xam ne dafa diggu dóomu am biddiw boo xam ne dafa leer naññi. maanaam biddiw yooyu sëñ bi yëpp benn la bi nga xamante ne day lëndam ak bi nga xam ne xaaj bi mooy lënd ak bi nga xam ne dafay leer ndax benn biddiw la mooy dikkee ci anam yu ute wala. boo xoolee douze heures de temps yi biddiw dañuy renouvelante dañuy renouvelante da ngay gis bii day day day monter. six bu six jotee ca ngoon bii dem benn bi taxaw misaalum loolu mhm. yenn saa yi da nga dox ci tëli bi gis gendarme bu monté neuf heures hmm, ba midi am ku ko relevé sunu borom lu tax mu doy waar lépp lu mu message am na jeexantal ci kaw suuf mhm. gis nga soldaar soo su nekk ci kaw am boo ko xamee boo gisee ñu naan neex yàlla naqar yàlla dañ koo teg ci ilmu nu joom ilmu nu joom boo amee xam-xam bi xam-xam bi bu xasee nekk sa bopp maanaam dépendre tout ci nag ci lenn lu yow la nga def boo ko xamee xam na nga koy defee boo bàyyi rek mu nekk. maanaam su ma déggee sa wax mooy li ñuy faral di wax naan yàlla noppi na. misaalum loolu su ma la joxee tey exemple na la boo jël nen toog ci boo jëlee nen. toog ci pegg tali bi nga xool sëfoor ba gën a ay ci sëfoor yi nga bëgg a toj nen bi nga capp toog di xaar oto bi pneu euh, pneu avant yi bu jàllee mu des deux pneus derrière yi nen bi boo ko surxalee ca deux pneus derrière yi sëfoor bi lu mu ay aay aay aay aay mënut a fexe ba du ko parce que frein dong moo fay xalaat te bu freiné mën naa duré ko ba toj ko. il ilmu nu jom nag dina toll foofu parce que biddiw sunu boroom xarañ gi nga xarañ. mënoo traité ba biddiw bi du du du du du sàqi dem te am na ñoo xamante ni bu ñu xamee ne fàllu 9 heures la moom biddiwum 9 heures lay fekk 8 hmm? heures et demi la jàpp lal seen sijaade toog te course gi. la ñuy def heure bu ne heure bu heure bu moyen benn minute rek ñu def li ñuy def biddiw bu jógee day jaar ci kawam. kon gis nga xam-xam bokkut ki nga xamante bi day xëy toog sept heures ba sept heures parce que kooku mooy kii appare mais ki nga xam ne xam na dara ci ilmu nujoom benn heure la soxla ndax nit ku nekk benn bis nga benn weer heure amaatul leneen paasewut foofu benn bis benn weer heure. maanaam sëriñ bi li nga leeral ci xilmu nujoom lu am solo la ndax maanaam li nga wax rek ci kanam faaw ñu dem ci tableau bi nga gën ko yaatal waaye ba tey tamit dañuy xuus. ci xilmu nujum bi maanaam li nga wax ni nit ki rawaxaan la am ak euh, li xam mooy xuddaam ak ni ko tabiam am noonu ni nga ko waxee maanaam xam ci ban anam ban ban ban ban fànn côté la ko suñu borom fiitale waaw bëgg nañ nga leeral ci lu am solo nag ñuy doog a xuus si beneen fànn ak it maanaam yow mi nga xamante ni yaay def baatin li ci nekk ci njëriñ ci yow mi koy def waxuma nag ki nga koy defal ndax yow loolu boo ko gëstoo ba xam ko boo ko dara boo ko xamee ki koy defal la amal waaye yow mi koy def boo noppee ba ñaanal nit ki bu mu jógee si ay jafe-jafe wala mu nekkoon ci ay coona wala mu ñàkkoon am liggéey wala mu tawatoon nga fexe ba mu génn ci loolu nekk ci ay yiw njëriñ li ci suñu borom def ci ki koy def gannaaw bi ne danañ dugg ci li nga xamante ni danger bi ndax loo gis mu am njëriñ rek am na danger. Euh, sunu borom bëgg gi mu ko bëgg tax na lu ko nit teggil tuyaaba ja day fulu waaye bëgg gi mu ko bëgg na tax na itam lu ko nit teg defe naa ne bàkkaar ba day gën a multiplier wu. Hmm? ndax yàlla moo ñu gën a bëgg lépp lu looy gis ñeewante gi mu ñeewante waajur du ñewante noonu doomam ba tax na euh, ki nga xam ni teg na mbiram ci àq képp koo xam ne yaa ngi seq ak moom mu wóor na la nit ki ñëw na am ci yow jooytu nga seet ba wóor na mën nga koo tegal bis boo ko tegalee waxuma la moom waaye la cër bala maanaam pay bala ca yàlla jox defe naa ne soo ko xamoon dana jar góorgóorlu ba mën a teg sekkil nit dégg ci tànkam waaye safaan ba itam mooy fekk nit ku nekk ci degré tawatu juróom nga yóbbu ko ci degré dix te day am danga gis koo xamante ni day ñëw yàlla may ko seet li mu li mu am mooy li mu xam mooy rek wakilu wakilu naam baax na waaye nag misaalum wakilu boo ko doon misaal tey ci togg xam nga ceeb dafa am diw am lujum am jigéen ji boo gisee mu dugg ci marché bi détail par détail lu tax mu koy def te pourtant lépp ci biir bi la jëm mais mën naa ñëw taal cin li def ci ndox jël ceeb beeg diw li lépp dugal togg est-ce que bu wàccee bu ñoree di ko lekk yow. du neex lekk kon lu ci nekk dafa am heure ak détaillé ko soo gisee xam xàmmee am solo nit da ngay xam xàmmee boo xamee xàmmee lépp loo def yàlla mën na saa sutural amut lu nit di góorgóorlu te yàlla du ko ca may yàlla bokkut ak doomu aadama doomu adama mooy iñaane nga dem ba ci biir mu koñe la waaye suñu borom lu mu lay may loo ci gën a xuus di gën a dem ndax boo xoolee aaya bi li mu wax laqad la insaana fii ak su ma ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin nit ki ci ak góorgóorlum ci lay dem ba tolloog malaayika daraja waaye la waaye nag ci ak yàccaaram ci lay dem ba tolloog bàyyi ma daraja wala yaasu billaahi doomu adama suñu borom daf ko may ay zigaay zigaay ci bopp bi te zigaay yu ñu may ñun feesalaguñ ci ñaar sax kon xam-xam loo ci gën a root muy gën a dugg sa bopp bi. yaa ulul yaa ulul albaab yaa ulul absaar ah, ok kon foofu liñ fi mën a jàngatee mooy mag ñi danga daan gis ku yor ak jur jur gi bëm maam mbeem. mu wax euh, xale bi ne ko demal nga jox ko ngooñ wala nga demal nga jox ko ndox loolu lan li ko war a lan mooy bàyyi xel gu ñu bàyyi xel jur gi dem ba bay communiquer ak li ñuy wax lan la hmm? kon euh, lu ci nekk xam-xam li mu laaj mooy temps ak gëstu ak nangoo sonn soo ko defee suñu borom dalay yombalal li ngay li ngay gëstu waaw kon bokk na ci doomu aadama noo ko gën a mën a génnee ci situation rek maanaam xéewal di gën a bari ci yow yërmande di gën a bëri ci yow gën muy gën a yombalal tam sa sa sa say mbir. Eh, li nga leeral foofu dafa doon lu am solo ndax eh, suñu borom dafa wax ne wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni maanaam ba noppi dellu waxaat ni maanaam doomu aadama moo ko sàkk ci ngën gi rafetu bindin teral ko ci teraanga yëpp moo xam géej gi la asamaan si suuf si di ñu tawal suuf si gàncax gi di si jabbi mu defaroon ñu géej gi jën yi di ci nekk mu mu tàggatannu mala yi ak lépp loo xamante ni mu ci kaw suuf yaakaar naa aaya bi tudd ko wala xad naa bani aadama teral ko teral boobu mu teral doomu aadama muy firnde li nga wax ni moom suñu borom moo nu gën a bëgg dañuy wax ni yërmande téeméer la juróom-ñeent yëpp suñu borom la nekk dañuy wax ni benn bi ci la séddale li doom di yërmande li wayjur di yërëm doom benn bi ci la séddale li mag di yërëm raqam benn bi ci la séddale ñeewante bi xarit di am ci morom maanaam ci benn boobu mu yërmaane bi ne ci àddina bi kon yaakaar naa ni doomu aadama bu nekk ci ay tolof tolofe ak jafe-jafe ñëw yaakaar la ba diis la boppam yaakaar suñu borom njëkk ñëw ci yow yaakaar la yaakaar tawféexu suñu borom ci yow yaakaar naa ni bu ñëwee war nga ko dimbali war nga fexe ba gindi ko jëlee ko ci li mu nekk waaye nag kon loolu mooy waral li ngay def njëkk nga xam ko ndax li ma wax rek xam leelu nëbb nit ki moom li koy dal fa mu am yaakaar rek fa la mën a jëm. waaw kon maanaam yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci li nga xam mooy fajum baati di doon loo xamante ni baatin suñ ko waxee mooy lu nëbbu. kon képp ku ciy toog rek war na doon lu maîtriser. kon maanaam dañuy dikk ci tableau bi nga gën ñëw leeral li nga xamante ni mooy yéen mënu juum. bisimilah. na ma damaa bëgg xam sama bopp dara. war naa def man balaa maa dugg ci moom. Mhm. lii laay njëkk def ma laaj ko noo tudd mënu ma nan Modou Ndiaye. Modou Ndiaye. ñu lay def Modou Ndiaye bii soo xoolee lii 40 la mm-hmm. lii 6 mm-hmm. lii 4 lii 3 lii benn lii 10 soo ko calculer 46 plus 4 plus 4 euh, encore plus 10 mu jox la 64 64 gi nii mhm. léegi 64 yii nga bëgg a xam ban buróoj la Mourou Ndiaye mii mhm. ba xam da nga dugg ci paj wala da maanu ci moom mhm. nga séddale ko ci fukk ak ñaar. 64. divisé par 12. dafa daan ne 5 moo ci des ndax virgule yi amul solo. nga jël 5 rek. kon virgule yi moom des ko ci limaam. ndax lu mat lañ soxla. 5 boobu kam nga dara bu waar ko ci fukk ak ñaar mu joxale 60 bu njëkk ñaa ngi amoon 64. Mhm. léegi 60 bii wàññi ci 64 mu jox la lan. mu des 4 chiffre 4 bi moo ci des chiffre 4 bi boo ko doon xool tey jii ci ilmu nujoom tabla baa ngi nii lii maa ko liggéey. lii mooy xel mu boo xoolee 4 parce que bis mi ngi tàmbalee ci dimaas altine talaata àllarba kon àllarbaa ngi nii soo xoolee 4 bi mi ngi nekk. tomb bu ñuy wax Joal dafa leen dem crise kii pour mu waaw ñu ngoog macha allah kii ay mbiram dafa baaxoo jafe-jafe ndax waxtu woowu mag ñi daawuñ tere sax ko ci ku ci dox ak yéen ñu ngoog maanaam dafa lëndëm dafa ñëw bi muy ñëw ci àdduna dafa tombeek biddiw bu lëndëm te loolu day am il faut que nit ñi bàyyi xel ne nit sunu borom dina ko sàkk mu ñëw ci àdduna pare du am wërsëg. waaw ndax dañuy wax coono bu doon tax am damay bañ a tudd tur waaye kon am na ñoo xam duñ ñàkk. macha allah waaw léegi boo ñëwee fii <laughs> Cheikh Fadil. Mhm. ñetti biddiw yi ñoo am ñetti mbir àdduna lépp lii la. Mhm. Mhm. boo déggee ma ne àddunaa ngi nii. bii xaaj bii dafa leer xaaj bi lëndëm mhm. da ngay gis nit ku doxee noonu koo xam ne day am ba yàgg du dootu amati nga gis ku ñàkk ba yàgg mu am mooy biddiw bii mhm. nga gis koo xam ne ni ay mbiram bi mu ko bi mu nekkee diw ba léegi mosuñoo gis mu am ay toortoortu foo ko fekk mi ngi naat mooy kii mhm. nga gis koo xam ne foo ko fekk mu ngi ci ay problème mi ngi nii loolu lu koy indi mooy nit boo gis buy juddu ci bis lay juddu. Mhm. bis boobu ci heure lay juddu am na weer kon ñett yi mooy lii léegi nag lii pour nga xam ko mhm. faaw nga mën a détailler lii mhm. soo ko détaillé moo lay wax ndax dangay def wala da ngay bàyyi nga xool ko gis ko mu ñuul nga ne ko ah. xam naa ñu dolli la yóbbu ci. waaw ci ci ci xam nga waaw. xam nga boo boo jëlee turam. Mhm. déchiffré ko. Mhm. ci ngay xam koo war a jëflanteel. waaw bu la joxee lim bu mag bi. Mhm. danga koy séddale ci par. fukk ak ñaar fukk ñaar mooy douze. muy douze fukk ak ñaar yooyu boo ko séddalee. man ngaa dema dem dem ba xam tabiaam lan la bu jëm fan la de fan la bokk. ci almaahu wala alnaaru wala trois voilà léegi bu fekkee da nga bëgg a xam nag. boobu moo la yóbbu ci euh, biddiw bi waaye boo bëggee mu yóbbu la ci suuf si wala ndox wala ngelaw léegi 64 bi da nga koy diviser kon par kii moo la yóbbu ci tabian boo xamante bi maanaam ndox la ngelaw suuf wala voilà soo ko divisé 64 nga moom mhm. pour ñu teewlu rek mhm. ngir mën a leeral xam ak xamal bi lii mooy lépp waaw mhm. boo defee 64 divisé par 4 mi ngi lay jox cent 256 nga defaat multiplier maanaam darbu par 4 parce que dafa am loo xamante bi ndax xam naa ni ñu seetaan day am loo xam ni dinañ. faaw nga nëbb ko faaw nga nëbb ko. day am loo xam ne dañ ciy noppi. waaw li ma bëgg a wax mooy lii la mhm. lii mhm. lii set bi moo lay jox bisi yi kaat bi moo lay jox ngelaw suuf ndox safara mhm. douze bi moo lay jox buróoj bi mooy biddiw bi nga xamante bi ku lay ñaanal bu xamul biddiw ba mu war a toog. après mooy après ñaan bi ndax fukki heure fukki heure yi ak ñaar jariñu lu benn bis benn benn biddiw rek nga ci am amoo fukki yeeg ñaar nay leer mhm. ki xam du tàmbalee six heures ba six heures ku xama day def loolu ku xam dëgg day xool ba gis sa bureau fu mu nekk ah mu jàpp ba set dem am fa trente minutes def la muy def bu dee tukkal àdduna da koy tukkal bu dee defar da koy defar waaw nit de boo koy seeti boo xamee waxtu woon fay nekk yaakaar naa te nga koy d'accord maanaam ñëwee mhm. ci côté doomu aadama yi noonu lañ demee ci côté rab àll yi rab àll yi ci heure la ñuy génn ci heure la ñuy duggaatee waral boo demee ci bi doo gis yëpp génnandoo parce que kenn ku nekk da am heure booy génn ak heure booy foofu suñ bi balaa nga faa dugg ndax dañ am fu jaar ndax dañuy demal ba ci palante ci côté boobu bismillah waaye li ma bëgg nga leeral ko dëgg mhm. maanaam fii da nga wax maanaam bitiwam mhm. maanaam waaye dañoo dañuy laaj ndax lii bu fekkee nit ki ngay ngay ñaanal buy kenn nit tey bu fekkee da nga xam nit ki ngay seetal nit ki mu doon eh, annaaru maanaam sawara mm-hmm. nga war koo boole koo xamante ne ci almaa la ko suñu borom bi ndox mm-hmm. ndax ñoom boo leen dee ñaanal mu doon soxna ak borom ko dinañ mën a nekk wala déet ah, déedéet yow loolu yow sa bopp sa xam nga loolu ndax kenn ku nekk xam na na sawara ak ndox bu jaxasoo xam nga liy xew léegi yan xeetu doomu aadama ñëw mën a ànd ko <laughs> waaw waaw mën a ànd kenn ku nekk xam na nag ngelaw ak safara tey jii boo doo boo jëleen fourne def ci këriñ nga bëgg mu boy nooy def. da nga ëpp waaw ah, jeex na. kon ak safara lu ci nekk rek balay koy xel mee nangu bala ngay dugg ci baatin il faut xel mi nangu ko xam nga euh, xam-xam dafa dafa laaj matière logique. Mhm. am na loo xam ne logique la. nit loo ko wax mu am di déng déng rek xamal na loolu du lu du lu jaar yoon mhm. lii nag. bu yàlla attee nit mu dugg ci boppam mooy dem ba li ñuy wax ramli tomb bi ñuy wax ramli mhm. ba tey mi ngi correspondre ak yii ndax ci am na ci tomb yoo xamante bi doomu aadama nit koo gis am na aay bu koy defar am aay bu ko yàq mhm. boo demee ci alxuraan ji gis ko fa boo demee ci garab yi gis ko fa kon ñaar yu ñoo am leer ak nóoraan yu soo demee ci plante yi am na ci palant yoo xamante bii day correspondre ak biddiw bi. foofu dafa mel da nga anticiper sànq yaa ngi woon ci rabu ga rabu àll yi waxtu yi ñuy jóg. xam nga temps xam naa ne dafa am loo xam ne boo ko bëggee détaillé. Mhm. temps bi du fi xaj. Mhm. te nit ñi déglu wax ji day mel ne waxi picc ci ñoom. Mhm. parce que daf dafay loo xamante bi du du du du temps bu gàtt la laaj. xam-xam bu bu bu boo xamante bi bu nu war a leeral la. leeral bu bu leer sax ndax doomu aadama boo gis rek. ñett ñett ñett ñett heure la am mooy ni ma la ko waxee weer la bis heure mais ci weer ak bis heure yooyu ci ngay xamee nit ki kuy ku kuy kuy doon dara la ëllëg wala nan lay demee loolu yaa ngi koy xamee ci bis taxul nag nga doon dara yow waaye ci xam-xam nga sukkandiku boo demee ci géej gi tubaab yi am na heure fu ñuy toll seen bato yi ni yor ñi ngi ñi ngi ñi ngi dépendre léegi ci biddiw yi kon gis nga ilmu nujoom ni mu amee solo ilmu nujoom da dem a dem ba wax la boo demee sa kër di nga fa fekk gan tel tel tel fa fekk nangam ak nangam kon xam-xamu biddiw diis ko caaxaane sëñ bi loolu mooy science am na jàmbaar ju mag kilifa gu mag yàlla na suñu borom yokk leeram ñu koy wax Serigne Sam Mbaye waaw day faral di wax ni science dafa doon loo xamante ni saa yu ñëwee rek day fekk alxuraan raw ay siècle macha allah te lii. moom lépp ci alxuraan la jóge ndax yaa ngi dugg tudd sànq ramle bëgg nañ tamit nga dugg ci ramle. jërëjëf ak fu mu bàyyi ko. boroom xam-xam yi nee nañ ci yàlla yonent yàlla Idris la la bàyyi ko. te wax nañ da ci daan àttewoo. waaye ramle moomu muy xam-xam bu doy waar. xam-xam la boo xamante ni ñi ko xam dañuy dañ leen di jaawale ak wàll yu te xaaj ñu ko jege te ramle rek la. ndax daa doon xam-xam bu àtte jamono. parce que ram-ram ram li da gis ne turu yonent yëpp la indi am na ñu koy jàngee comme ci nii kii ñu koy woowee Muhammad am ñoo xamante bi bii ñu koy woowee Hassan hmm? am boo xam bii Moussa am boo xamante bi Ibrahim te yii yëpp bu ci nekk day wax ndax boo tëralee table bi nii bii mooy table normal bi boo dee boo dee ñëw di set li ngay def plus dangay dangay da ngay dangay ngay baare benn bàyyi benn baare gisoo ñu jox la benn nga taxaw nii mu ñëw nii ñu jox ñaar nga wàcc ñaar ñu ñëwaat fii mu jox la benn nga def benn ñu ñëw fii ñu jox la benn nga def benn léegi da ko def ñeent moo lay jox tableau normal bi. te lii ko gis day jàpp ne tomb rek la. <laughs> sëñ Fallou mhm. su fekkutoon nekk ñu woon ci écran dinaa jox ñaari tomb yoo xamante bii mhm. rawa maanaam misaalum ñaari tomb yooyu mi ngi mel ne ku yor jaasi yoo xamante ni loo ci bëgg a gor ko ci wallaay lansim nga gis ne ñàkk xam-xam mi ngi tàmbalee ci jàpp ne naam alxuraan mooy ndey téere waaye mm-hmm. nan bàyyi xel lii mm-hmm. alxuraan boo xoolee lu ci xoolal alif moo njëkk ah xoolal bism bi xoolal tomb bi mais lu tax tomb bi tomb bi boo koy firi noo koy firee mm-hmm. tomb bii nag mi ngi nii te dafa mel ni bisi bisim bi ba baa la waaye liif ku njëkk lu mu doon ah, ah <laughs> yow laaj naa la ko <laughs> dafa mel ni tey tey bu doon liif la goo xam daana ci kanam da nga ko wàññiwaale benn jeex na fi ñu li ñu li ñu bëgg a jàngale mooy tappale lu muy bari bari bari bari teewut xam-xam ma nga fa mu nekk mais nan la ñuy def ba xam ko waaw sëriñ bi loolu moo tax ñuy wax xam le lu nëbb waaw ndax man tey jii yow saa boo ne salaamaaleykum saa bu ma xasee xam sa tur mën naa xam bis boo juddu mën a xam yow borom am am nga da ngay yàqule wala nooy def te sa tur dong laay soxla nit mënoo toog ne da ngay woote woo xam-xam nga ñëw ñu ñu nett la lépp ba mu jeex nga bëgg a ñaan foofu am na lu fa am na fa nekk ñaan day am looy xam ci nit ki waaye ci kaw ay tomb ak chiffre détaillé. pour ki la laaj ki la laaj sa tur moom. ne la ñëwaatal. kooku ñemee na la muy def waaye ki nga xam da ngaa ñëw di seet seetlu mu ne la lu lay metteek luy sa problème ak da ngaa jot ak seen waa kër kooku mu dafa mel dafa laajte ba noppi. waaw parce que parce que boo demee jëlal exemple ci picc. bu doon tàgg tey nekkul bant bu jóg rek mu ŋàmp ŋàbb ko yóbbu ci tàggam da ngay gis picc dooy seetlu picc muy tàgg danga nga matt bant peese ko ba yàgg mu bàyyi ko da ko gis ah xam nga lu ko lu ko waral picc mi mi ngi calcul bay calculer pàgg tàgg mi bis bu mu demee ba mat ma ngay cay boole poids poids yaram bi bu ca toogee bu nen ya nekkee ca ca tàgg ma doole nen bi poids bi ma ngay calculer ba bu nen yi bu tojee seen poids ñoom ñaar mu bañ a pëtëx ma ngi koy ma ngi koy calculer bis buy jël bant bi moo tax du ca boolee bant boo xamante bi da koy indi jéeya te kooku picc la. ak doom ya ak doom ya. nga xam ne dina dina suuraale ba suuraale tàgg mi dana dem ba picc yi naaw te tàgg mi du mbëbëx tàgg mi du yàqu yàlla ji bu dee taw taw bi du dugg ci tàgg mi. Mhm. dina dem ba xam orientation ngelaw li. nga xam ne ngelaw li du ko safu ba mu koy dugg ba di rey doom yi wala muy rey seen seen yaay. Mm-hmm. Hmm? kon loolu lépp lan la ci xel. Mm-hmm. te xel moomu nag suñu borom doomu aadama la ko njëkk a jox. nga gis rabu àll yi bari na rabu àll yoo xam saa bu ñu li ñuy njëkk def mooy téen ngelaw li moo lay indil lañuy lekk fan nekk. suñ bi dogguma la ndox suñu borom dafa dafa def am na yonent boo xamante ni li ko suñu borom joxoon ci nguur kenn xamul nu mu ba tey mën naa ni eh, li ñuy jëfandikoo lu bëri ci asraar mën naa ni ci moom la bàyyi ko muy yonent yàlla suleymaan suleymaan alayhi salaam hmm. Hmm. maanaam tey wax nañ ni maanaam boo duggee ci xaatimu suleymaan hmm. li ngay gis si sunu portable yi muy jees yi ak pilis yi yëpp booy xool fa lañ ko fa la ko tubaab yi jëlee ah, waaw xam nga suleymaan buñ ci duggee rek dugg nañ ci lasraar ndax mooy mooy mooy bàyyi lasraar mooy ndeyu lasraar waaye euh, lasraar Euh, ki gën a gàtt xel jàpp ne lasaraar ci mbind rek la nekk moo gën a ñàkk xam-xam am na dëkk boo xamante bi ay xeer ci lañuy defee la seen lasaraar ay xeer. waaw boo ko génnee ci ram. waaw yaakaar naa ni day noor. waaw xam nga bëgg nga nag ma leeral ram li nit ñi waaye du mën a yombee noonu. ndax fi mu tur boo gis rek am na këru ram li gu mu jàpp. benn xam ram li boo xoolee seize chiffres la fukki chiffres ak juróom-benn. Mhm. Hmm? fukki sifir ak juróom su ma ko effacé nii man la koo génneel fii léegi ndax boo xoolee hmm? bii dafa am hmm? bii am bii am bii am bii am bii am bii lañuy wax no bii am hmm? un deux trois quatre cinq six sept hmm? nga ñëw fii bii am nga ñëw fii bii am nga ñëw fii bii am nga ñëw fii bi am tey bu ci nekk tomb bi lu muy bëri bari bari bu ci nekk am na wax ju muy wax ndax boo xoolee ay pion yoo xamante bi boo ko tëralee ba ni nga ko war a tëralee àgg ñoom dañuy ay soldaaran yoo xamante bi kenn ku ci nekk fa nga war a nekk rek ngay nekk te lu mu fu mu nekk rek wax la fu mu nekk rek am na lu muy am na lu muy leeral. sëriñ bi dogguma la dafa am suñu kilifa gu mag wax nii complexe ñaar la. maanaam complexe bi nga yaakaar da nga jàpp ni yaa gën ñëpp bi nga xam da nga jàpp ni ñëpp la gën Cheikh Moustapha Salih moo ko waxoon maanaam euh, nit day jël portable am te doomu aadama ni moom moo ko defar jël ay chiffres daal di bind bës bës bës am ko woo jot ko kon war nañu mën a gëm ci ni yéen xol mënu jëm li ngi ci leeral ak ramle bii nii leeral ci ni ab yonent suñu borom wàcc ci ay xeet la ko suñu borom joxoon mu ci daan atte jamono leeral ci almu nujum bi suñ borom moo ko dogal ci muy xam-xamu biddiw doon loo xamante nit ki mënoo ko ñaanal te xamoo ko doon loo xamante ni nit ki maanaam biddiw bi ko suñ borom tànn mu doon ko moo xam ndox la wala sawara la dafa am moom it ku mu mën a àndal moo xam ci sëy la wala liggéey la suñu borom mën leen a dogal seen liggéey gën a yaatu wala seen sëy gën a neex am koo xam su ko àndee moom moom ci bërëbu liggéeykaayam liggéeyam du dox am koo xam te bu àndee moom ci këram këram du dox kon loolu dafa doon am solo ndax bu ñu wax xam ne loolu nëbbu ci fajum cosaan ak baatin lii mooy dëgg-dëgg baatin gis nga waaw dogguma la sëñ Fallou ba ci ñi nga xamante ni dañ leen di jox saafara ñu koy sangoo mm-hmm. saafara parce que nit boo gis dafa am nit ñoo xamante bi armi ñoom seen seeni i ci la nekk maa ngi wax nag lu nëbb am ñoo xamante ni ci ban la seen affaire nekk am ñoo xam ne ci leket la seen affaire nekk am ñoo xam ne ci bronze bronze përëm waaw lii bronze la am ñoo xam ne seen lépp ci bronze la nekk seen tabian mhm. lii la soxla am ñoo xam ne ci xaalis ci la seen affaire nekk xaalis olof wax xànjar waaw xànjar mhm. ñoo xam ne xaalis la seen affaire nekk yaa ngi dégg baax li ma wax mhm. suñ bi lii dafa mel ni alluwa la waaw alluwa la waaw xam naa ne après dinañ ci débat yow da nga xaw a bari affaire <laughs> loolu bu ko yàlla defee lu lu waral lu ci nekk rek yàlla sàkk ko hmm. il faut nit ñi bàyyi xel lu tax lu nekk rek yàlla sàkk ko am na lu tax hmm. ki nga xamante dafa war a jël alluwa yi alluwa maanaam maanaam waaw alluwa xànjar def ci këll def ci ndox di ko sangoo di sangoo ci euh, siwo hmm. est-ce que loolu yenu na maanaam yenu ngi mel ne ki nga xamante ni dafa war a togg war a jël cin la muy toggee la muy toggee nag mu jël siwo teg ko si taal bi di togg. ndaw siwo bu rëy. ok fois di gis koo xamante bii lañ lan ko bint boo ko liiree ah da nga naan lii de baax na nga jox ko mu yàqoo ca moom. atta ka koy jox lam koy jox leeralu ko ndax am na ñoo xamante bi seen saafara dañ ko war a tàngal pour mu mën a dugg ci yaram bi ma nga dépendre ci tabian ba ca buróojëm ba. nit ki ban heure la juddu am na am na ñoo xam ne saafara suñu war a sangoo dañ ko war a tàngal am ñoo xam ne saafara yi ñuy sangoo waruñu koo def ci bool waruñu ko def ci siwo dañ ko war a def ci leget waruñu def ko ci xànjar waruñu def ko ci leneen loolu lu mat a bàyyi xel la am ñoo xamante ni heure bi ñuy sangu day fekk biddiw bi lëndëm ñu sangu ci. su boobaa du leen jariñ wala. ok boo gisee appareil metti gis nga calendrier bi tey ji boo ko yoroon. xoolal fii da wax ne dimanche bi. sept heure bi mi ngi tàmbalee sept heure sept bi mooy taxaw ci sams. sams sams bii loo fi def. Mhm. am nga mille chance pour am ko. mu ne ban heure ma ci topp mu ne la huit heures huit heures mu taxaw ci biddiw bu ñuy wax zuxrata mu ne zuxrata heure bii loo fi def am nga mille chance pour am ko. Mhm. ba tey yaa ngi ci dimanche bi de. nga ñëw ci biddiw bi ñuy wax maanaam utaarit taxaw ci neuf heures. Mhm. mu ne leen utaarit dafa diggu doomu mooy première bi mooy euh, maanaam li tàmbali neuf heures et demi mhm. dafa leer nañ léegi beneen xaaj bi mu ne dafa lëndëm bàyyil mhm. dara leeru ci mhm. nga jógee ci utaarit bi ñëw ci xamar muy dix heures mu ne biddiw bi dafa leer nañ mooy biddiwu xaalis dimanche dix heures am amub xaalis day yomb mu ne la boo jógee ci di euh, dix heures yu dimanche. Mhm. nga ñëw ci onze heures yu dimanche moo taxaw ci biddiw bu ñuy wax Joal. Mm. Joal problème du fa jóg biddiw ba dafa lëndëm këris amul benn trou bu leer. allah akbar nga jógee ci Joal ñëw ci euh, douze heures mhm. mooy midi bi. Mhm. mu la mustari la biddiw bi dafa leer nañ loo fay ut gaawal profito parce que Mariax mi ngi ci kanamam te Mariax. ay mbiram waaw dafa dafa doy waar waaw mooy ñi nga xamante ni ñooy am problème mu tribunal yi problème mu kaso yi problème mu crime bi ñooy judd ci biddiw bii mooy mariax nga xam ne fu ñu leen fekk bu ñu leen tëjut rey na nit def na accident feebar na mooy ñii nga ñëw ci sams mooy nit ki nga xam ne maanaam ay kilifa lañ bu ñu yilifut jiite wala ñuy jiite dinañ leen yittewoo ci la ñu jiite waaw ngoog bu ñu yilif rek jiite hmm. wa ilaa dinañ leen yittewoo ci ñoom leen jiite macha allah nga gis ne kon ndax sëñ bi yéen maanaam tey doon leen président doonu leen ay maire yi waaye président yeeg maire yëpp leen soxla nag ba ci kilifa waaw ndax xam nga yenn saa yi di nga gis koo xamante ne bii hmm. dana ñëw di xëccu hmm. nga gis ko ci biddiw yi benn mu tomb ci da xam ne li muy xëccu nii du yomb pour mu jot ko te tey boo ko waxee mu weddi ko dafa am ñoo xam ne yàlla leen sàkkee nguur am ñoo xam ne yàlla leen sàkkee du àdduna mënta neex a neex neex ba nu doon nguur am ñoo xam ne yàlla leen sàkk ci ak nguur ki yàlla sàkk ci ak nguur su sangoo am nguur su sanguwut am nguur muy leer misaalum loolu mi ngi mel ne doomu ñay bu juddu na mu toll bu ko ca xeeb ndax fa muy mujjee mooy na baayam toll wala na yaayam toll am daal ñoo fi wér ak gudd fan nga koy ñaan. kon doomu aadama yi am na ci ñoo xamante ni bis boo yëree seen biddiw ñoom moo lay leeral kii mooy doon kan bu ëllëgee nga gis ne kon loolu yàlla moo ko def ci doomu aadama moo tax doomu aadama bu nekk am heure bis weer ñëpp nag ñi ngi rawante ci weer yi bu ñu demee nag ba am ñaan ah, kenn ku nekk sa biddiw mooy tax nga nga supérieur sa moroom parce que biddiw dana yombalal ñaan biddiw dana gàllankoor ñaan mbir yi foofu la nekk. jërëjëf sëriñ bi ci li nga leeral ci almu nujum ak ram li xam naa nangu woo cee yaat ndax daa doon xam-xam bu laax ko waaye ci yeneen jotaay incha allah waaw li nit ñi nag li ñuy li ñuy wax chaque jour ci xam ne lu nëbb nit wartu jóg di dem ci koo xamante ni wéru ko ni li mu yor lu wér la ndax fajum baatin dafa doon lu xóot suñ borom dafa am xam-xam yoo xamante ni moom rek moo ko jagoo am loo xam ne yonent mi la ko xamal am yoo xam ñenn ci wàllu yoon mi am ñoom aqtaab bi ak awtaat yi la ko xam am loo xam ne ñenn ci mbindeefam yi am na ñoom ko ci xamal kon nit ki buy sàkku war naa fexe xam fa muy jëm di sàkku kan la ndax lam yor xam na ko ndax lim leeral ci nit ki biddiw dafa lëndëm ak bu digg doomi ak bu leer kon war ngaa fexe nga xam exactement li nga xamante ni war nga fexe xam exactement li nga xamante ni nit ki balaa ñu koo ñaanal dafa war a nekk ci moom daje ci moom kon war nañuy xam fi ñuy teg suñu tànk war nañuy xam ñi ñuy jëflanteel eh, li tax ñu jublu ci xam leelu nëbb nag sëñ Abdoulaye dafa wax ni jàngoro soo ko nëbbee mu weer la kon nit ñi nañuy fagaru ci seen bopp ndax xoddiku ca ba nga lakkaleegul te fagaru it moo gën faju moo waral ñuy dem ci borom xam-xam yu mel nii ñuy leeral lu yaatu ci baatin xam naa waxtu wi dañuy tënk fas nañoo yéene waxtaan ci lenn ci plante ñuy daal di delluwaat kon ci sëñ bi mu leeral ñu li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg plante plante lan mooy plante lan mooy garab ak nan la ko nit ki mën a sàkkoo ba mu jëriñ ko ak nan la ko mën a jëfandikoo ba mu jëriñ ko. kon ñu ñëw ci palant bu ñu waxee garab nag garab boo bindantee garab keef la raa baa boo defee sens contraire bi mooy lu barkeel mooy barkeel garab lu barkeel la ngi noonu. léegi nag kan moo xam garab bu ñëwee ci garab suñu fàllu garab des fois di nga ci faj nit mu yokk ko feebar nan lu tax mooy garab day feebar. maanaam bi garab yi ñuy faje moom day feebar day feebar waaye nan ngay def ba xam garab yi gi wér na mën naa faj wala mënta faj loolu mooy beneen problème la beneen bi ci mooy garab dafa am yoo xam ne dafa am ay dëkk am yoo xamante bi dafa lewet yi am yi dëkk am na nun leen di nuyoo ñi amuti dëkk am na nun leen di nuyoo yi am yi dëkk ñu ngi leen di nuyoo naam ñas yi amuti dégg ñu ngi nuyu naam lay léegi nag garab nag dafay kiimtaan mu mu doy waar ndax suñu borom bi ñu ko sàkkee dafa barkeel daf koo barkeel euh, da nga ñëw fekk garab gu sax nga bëgg ci barke nan ngay def ba barke am ca mooy boo xamee gannaaw ba nga xamee àq ja nga bëgg ci wërsëg tey misaalum tey ku mel ne ku demoon ci am ngeer ndax ngeer suñu borom dafa def ci moom nawet ak noor la yemale foo ko fekk rek ma nga ci xobam du mës a rab noonu mel nag mën nañ koo def ci nit ba nit ki mel noonu ci barkeb garab googu muy ngeer mel na ni am na garab gu may dégg ñuy wax ni doo ko fekk muy rat muy new may faral ñu koy faral di jëfandikoo ci saafara yu bari ñu ko léegi nag garab boo ñëwee bëgg mu mel parce que garab dafa mel ne un giga bu amul dara boo bu amul benn enregistrement hmm. nga bëgg mu copier la booy dem da nga war a correct maanaam sol yére bu boo xamante bi garab bi day jël sa taqandeer yére bu rafet nga xeeñ parfum nga def xaalis sa poos loolu de yoon la ci ngay uti garab pour garab bi barkeb garab bi dugg sa yow garab aussi di su ko ñàkkee teggin mooy dem rek fàq ku xamut mooy defee noonu garab garab das koy jox sutura das koy jox yar ndax bariwaa na garab yoo xamante bi dañoo lëmasoo ak jinne seeni reen boo xoolee jinne la seeni bànqaas boo xoolee ay jinne la waaye doo gis jimmi jinne ay bànqaas ngay gis boo demaat ci am na dëkk yoo xamante bi am na garab yoo xam ne boo leen joxoñee yàqu sa baaroom bi du lematu ba àdduna tukki te loolu garab doo koy def kon garab lu mën a suturaal la lu war a bàyyi xel la bi foofu daa am nañ ci leeral ndax suñ borom dogal na ni àddina bi suñ borom dogal na ni jinne fi jiitu doomu aadama ñu fi nekk seen yàq gu metti gi suñ borom ci la yabal malaayka yi mu dàq leen dañuy wax ne am na si ñenn ñoo xam ci garab yi lañ làq am ci ñenn ñoo xam ci ndox la ñu làq am ñoo ay montagne lañ làq kon loolu firnde rek la ci ni jinne yi ñoom yooyu seen seen nekkuwaay la. ay bërëb ay dëkkuwaay montagne am na garab yu mag yi am na ndox yi am na yooyu yëpp am na waaye lu mu ci mën a doon rek hmm, mooy jox cër garab ya ngay dagg lan la ndax garab boo ko joxu cër loo ca sàkku ko ci am te am na garab yoo xamante bi ay sangalan kenn du leen boole ki baadoo la mu amee ci doomu aadama yi noonu la amee ci garab yi am na garab yoo xam ni amoo droit ñëw tegale leen nii boo ko defee yow ma leen tegale kër googee xool ko ren ba déwén te pourtant xob la garab la. ay sang la ñuy doon. ay sang la ñuy doon ci ga ci garab yi lu mat a ràññee ngi noonu nag sang nag du su ko suufee da su koy teg ci kaw. am na garab yoo xam ne ay sang lañ te ñu ngi fi bari fi ba dee am garab yoo xam ne loo leen teg ñu tegoo ko ndax ay jaam mm-hmm. mu amee ci doomu aadama yi am doomu aadama yoo xam ne kenn du leen teg tànk. Mm-hmm. am doomu aadama foo leen fekk ba leen tegee tànk du mujj fenn. noonu mu amee ci garab yi noonu la amee ci jur gi. noonu mu amee ci jur gi noonu la amee ci njanaaw yi noonu mu amee ci njanaaw yi noonu la amee ci gunóor yi noonu mu amee ci gunóor yi noonu la amee ci sangalañ ji amee ci ndox suuf yi ñu koy wax jaan sunu borom lépp lu mu sàkk rek am na lu ca wex ak lu ca lawet ak lu ca diggu dóomu moo ñëwaat tam ci ilmu nu jóombee ba tey ñett ñett yi da gis nit ku weex lool nit ku lawet lool nit ku digg doomu moo ñëw ba ci garab garab am na garab yoo xamante ni boo ca bëggee jariñu doo doo ko booleeg dara ndax dafa fiir fiiraangeem gu doy waar. xam naa liñ bëggoon a leeral yépp waxtu yi dañuy daal di tënk waaye nga wax ci lenn rek ñu daal ñëw ci téere yu am solo yi nga xamante ni tënkoon nga ko maanaam muy maanaam garab yi nga xamante nit ñi dañuy dem ci ñi koy jaay di ko di ko di ko wecc di ko dagg di ko jaay ndax kon garab yooyu lu mën a lu mën a jëriñoo la wala bu fekkente ni nit ki sàkkoo na ko noonu ñëw di ko wecc ndax dina ko jariñ ca ka koy man mën nga ko jënd jëndin wa jaarul yoon sëriñ ba laal ko jat ko. barke ba ñëw la ca garaaw mooy kay jël reen di ko tàbbal ca lu mu mën doon ñàkk a xam reen ba man ban façon reen la reen mën na see ko mën mën nga koo dagg mu baax lool waaye mën nga ko bañ a dagg jënd ko mu baax waaye mi ngi dépendre ca yow ma koy jënd lu ci nekk rek am na code boo xamul code ba nag mu mu ñoo wax ne du nangu waaye mën naa yéex mën naa bañ a nangu itam waaye li nga xam ne am nga ci maanaam yaqin mooy li nga dem daggal ko sa bopp bu laajee bisu altine xam nga altine ji ban heure ngay dem bu laajee bisu alxames xam nga ban parce que dafa am garabu xeex ak garab boo xamante bi garabu wërsëg la garab bi xeex dafa am bis yu ñu koy dagg muy àllarba talaata garab yi nga xam ne wàllu wërsëg la lëndi la ak alxames am na garab boo xam ne day boole xeex ak ubbeeku àllarba la su koy dagg donc yooyu nit daf ko war a xàmmee su ko defee nag heure boo ko daggee koo ci jox koo ci jox bu soobee yàlla dina la woon na la garab gi ma jox de man daf maa yéem nga ñëw ba ci socc rek am na socc yoo xamante bi musiba la nga xam ni boo ko soccoo koo jàkkaaroo loo ko wax tookelee doon ci moom hmm? te socc la te bant la moo tax li gën a doy mooy xeeb loo xamul xeeb loo xamul suñu borom amul temps wu sàkk lu amul njariñ lépp loo gis mu sàkk ko rek xam ak ñàkk xama fi am waaye lu am njariñ ngi noonu kon doomu aadama li maanaam li mu war mooy gëstu gëstu mooy tax xam rëy du tax a xam nit da ngay suufe pour mën a am xam-xam xam-xam képp koo dégg mu koy weddi rek dajawute ku am xam-xam ku daje ku am xam du too weddi loolu. sëñ bi njëriñ euh, njëriñ li nga wax ci plante lu am solo la ndax it euh, am na kilifa gu mag ñox ñu wax di sunu yaakaar doonoon xalifa Serigne Touba mës na wax ni. Euh, nit de bu fekkee dafa wàcc ci bërëb te gisagul benn mbindeef bu xoolee garab yi war naa xam melokaanu mbindeef yi nekk foofu kon li nga wax ni suñu borom amul jot di sàkkul amul njariñ maanaam foofu rek dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ci bàyyi xel te it maanaam nit ki li may wax xam-xam xam leen nëbb li mu bëgg mooy li muy leeral mooy nit moom waratu a jëf ci lu li muy jëf da koo xam alxuraan euh, boo demee ci fiq sax dañoo xam ne walaay soxla fa mu kallaf ne fa xam ne fexlan ataakum hukmallah donte waxtu wi tënk nañu dañu dikk ci téere yi nga xamante ni maanaam yaa ko bind lii yaa ngi ko bind ci lii lii nga xam li ñu umpale ci xarum tabaski maanaam ñoo xam ci wàllu xarum tabaski baati ni ci nekk ak liñ ci umpale daal liñ ci moom tënk na bii nga indi ko ci li si cummikaay bëggoon nañu nga leeral donte waxtu yi maanaam tànc nañu bëggoon nañ nga leeral si tuuti bu ko defee tàggatoo waale bu ko defee xam naa moom wàllum plante yi dañuy waajat beneen waxtaan incha allah xam ne moom rek ci la ñuy waxtaan téere bi biñ ko liggéey léegi ñeenti at la ci toll ci la toll parce que dañoo jël xar ne ñu bari jàpp ne xar xar rek la te xar di loo xamante bi mbindeef la moo xamante ni ku ñuy wax si euh, Sina Jibril moo ko wàcc ci kaw suuf ngir lan ngir sauver Ismaïl parce que kenn ku nekk xam na histoire tabaski lu ci ah, yaakaar naa boog ñu ci bari xam nañ ko ñu gis ne suñu boroom nangu gi Ismaïl ak Ibrahima ak Hajara yaay ji nangu woon ban war koo rendi ci la suñu boroom waxee si naa Jibril wàcce xar bi pour mu remplacer Ismaïl ngir xar moomu ñu bañ ko rendi ñu gis ne xar moomu bi mu ñëw yonent moo ko tax a ñëw yonent kon la remplacer ban rend xar moomu ñu gis ne li ëpp ci askan wi bu tabaski jotee xar mi yàpp wi rek lañ soxla la ci des lépp dañ koy gas sànni ndeke xar mi li ci dëxuñu lépp njariñ la la tàmbale ci buum gi la tàmbale ci béjjën bi la tàmbale ci paaka bi la tàmbale ci sébrit bi la tàmbale ci ras wi wextan wi la tàmbale ca tànk ya la tàmbale ca euh, der ba loolu lépp di njariñal kese te loo ci def barke la ndax sunu boroom moo ci def barke mm. te barke bi jógewu ci lenn lu ñetti waajur ñaari waajur yu ko seq kenn ku nekk d'accord nañ ñu rend sa doom bu doon jamono ji lu doy war lay doon. te kii rendi ak ki muy yi doon ay yonent. nga gis ne kon xar mi nekkul parce que xar rek lañ gis mu remplacer ruug mhm. amul beneen mala itam bu ñu gis ne Sidna Jibril ko wàcce ndax xam-xam boobu tey du du ma dégg ñenn ci kilifa yi ñu koy faral di jëf nit koo xam dafa tawat bakkanam maanaam di def li ñuy wax lang ñu jotee ko bakkan. xakkañ ndax xar mii bi muy ñëw Ismaayla tax mu ñëw xam nga sarax dina dem fa toll foo xamante bii nit ki war naa am problème bii ñu remplacer ko xar xar ma soowee ko loolee barke boobee moo ko topp. xar nit ki buy buy yar. sax maanaam la mu yar mën na ko fangal lu bari. kooku xar di lu ñu war a cëral. moom la mooy mala bi nga xamante bi maanaam euh, euh, barkeel na barkeel bu wér. fi mu ko teg boo xoolee xaj mi ngi jur douze doom wala onze doom gën gaa néew six doom te doo gis coggalu xar euh, xaj di la romb. xar te xaj kenn du ci rend kenn du ci rey kenn du def dara dañ koy bàyyi noonu muy taxawal xar ñaata yoon lañ koy rey par bis ci la ñuy tabaski boo amee gan ca nga koy taral kilifa lu mu baax baax xar lañ ko tuddee te da ngay gis ne xar mënta seex a seex a seex ba seex ñeenti doom c'est rare nga gis ne coggalu xar saa bu tabaski jotee nga jàpp na xar dina manqué nga dégg coggal yi bari te itam kat doom suñu borom barkeel ko ba saa bu àddoo nga dégg ko kooku mooy xar. jërëjëf sëñ bi waxtu yi mu ngi tënk maanaam li si cumbikaay da nga ciy leeral tuuti rek tàggatoog mboor waaw li si cumbikaay dañoo jëleen benn téere xaatim ci ñi nga xamante ni bii dañuy dox ci wàllu xam-xam di ko wàññi ci écran ndax xam-xam am na am na gàllaaj yoo xamante ni jarul génne am yoo xamante bi ci kër la war a des am yoo xamante bi warta dem ci écran parce que dana am ay étincelle yu bàyyi ko ci ñi koy seetaan. sànq maa gis am na loo xam danga nga koo tënk. ok waaw ba tey sax tënk yi mënta ñàkk ala kulli ndax nit mënoo li nga xam lépp nga leeral ko ci écran mënta nekk waaye nit junj doy na borom xel ndax te jàpp naa ne ay borom xel lay waxal téere bii ñi nga xamante ni ñooy futteeku du dugg ci làmb ji moo leen tax a jóg pour ñu mën a jox teggin xam-xam teggin nag bu ñu ko waxee yaatu na am na loo xam ni jarul wane ci écran ndax lay daan mbër ma nekkut ca làmb ja ma nga ca kër ga bu fekkee ne ci galaaj nga ko teg moo tax am na loo xamante bi jaru ko boobu moo nekk nii boobu moo nekk nii hmm? boobu maa ko séq ak ku ñuy wax Moussa Gningue bu Fass hmm? muy téere bu doy waar kii moom xar maanaam di lu siiw chaque année dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy yeeslaat rek ndax barewaa na ñoo xam ne ñu ngi koy praat li ñu umpale ci waaw waaw li ñu umpale ci xam tabaski barewaa ñoo xam ne ñu ngi koy praat waaye xam-xam moo toll foo xamante heure bu baree njariñ ku nekk jàpp ne yaa ko liggéey waaye lii sunu xam-xam la wax dëgg yàlla ñoo fi njëkk a liggéey laabirante rek moo tax nag ñu bind ko pour xamal nit ñi tam xar du xar rek xar mbindeef la bu sunu borom jox si naa jibril mu wàcc ci kaw suuf ngir sensé ruuxuk yonent di ismail alayhi salaam kon yàlla nu yàlla defal topp ak ngërëm yàlla nu yàlla defal suturaas àdduna ak ju alaaxira képp koo xam ne déglu nga émission bi déglu ko ak xel parce que réew la ci gën a bon mooy jayante xam-xam am na mais fan la nekk problème foofu la nekk nit mënoo ñaan ci moom te xamoo biddiwum fu mu nekk diagnostic bu amul ci ñaan ñaan après la te lépp loo après doxul loolu daal suñu fàllu foofu lay daaneel sama kaddu di jégglu képp koo xam ne wax naa te wax ji dérange la maa ngi maa ngi jégglu waa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ xam-xam fan la nekk fi nga jeexale xam-xam sorewut dafa làqu waaye nag ki jóg di fas yéene sàkku xam-xam kooku la xam-xam ñeel ndax mu nga ca yoon xam la lu nëbb nag fa yéene jóg di dalal borom xam-xam yu mel ni yéen ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni mooy fajum cosaan ak baati leeral nga ci lu am solo macha allah li nga wax lépp lu rafet la lu tegu ci yoon na nit ki war warta jëf ci lu dul ne la muy jëf daa xam lu mu doon nit ki warta dem ci nit mu koy defaral te xamut ka koy defaral mooy kan kon li nga leeral du am solo nit suñu borom da ko sàkk sàkk ay bidiw sàkk asamaan maanaam sàkk xam-xam mooy almun nujum kon nit ñi nga xam dañuy jóg di dem nañu xam fi ñuy jëm ak li ñuy def ñu leen koy defal ñu koy jëfandikoo yan waxtu lañ ko war a jëfandikoo ak ci yan anam lañ koy jëfandikoo xam loolu nëbb nag nii rek lay def yéen saa su ne dem ci borom xam-xam yu mag seen xam-xam màccim ci cosaan fajum cosaan ak baatim ki leen koy defal ni borom jàmbaar di koo xam li muy def da koy jox yitte di Seydina Alioune ñu ñaan suñu borom gën koo yokk ay xiiwal gën koo kàttanal gën koo wéral ba saa suñu waree dem ci mel nii rek suñu borom dogal mu am tew feex te it di ko ñaanal tamit mu àgg fu kawe ak njortam kon suñu Alioune Diop jërëjëf suñu cameraman bu ñaawal bi ñu ngi sant day nuyu ki nga xamante ni moom lañ dal di Alhaaji Malick Gueye di nuyu groupe Bichri yëpp ñu ne États-Unis ak ñu nekk fii ci Sénégal ak nekk fi nga xamante ni mooy Touba ak ci partout dans le monde ñi ñuy seetaan ñu ngi leen jox di dig daje ci yeneen jotaay ak yeneen émission ak yeneen borom xam-xam jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu andani munzili dana wadai wa munzili sirai wa dawai andani munzili dana wadai wa munzili sirai الدوالي